dal leen ak jàmm mbokki internet yi safoo di seetaan Buzz M TV cant ak ngërëm ñeen na leen si topp bi ngeen di topp seen bi ñu daal di dikk si vidéo bi nga xam ne Babacar Touré Kéwoulo daal dina koy def ginnaaw bu ñu ko teewloo ñu daal si amal ay jàngat yu ama am solo moom Babacar Touré nag Kéwoulo journaliste investigation bi nag li mu xamle mooy mbiru moom agression Maimouna Ndour fay bi nag jàpp na ne régime mu président Macky Sall jamono bii daal yu ni mel si lañ koy gën a nemmeekoo muy am surtout nag jëmale ko si journaliste yi ndax réew mi nag moo toll foofu jàpp nañ ne am na ay mbir yoo xam ne mu ngi leer te journaliste yi nag ñoo koy leeral il faut nag ñu mettre leen en danger ba nga xam ne nag dinañ leen tiital xoqatal leen ba nga xam ne nag dëgg ci ñu war a wax du ñu ko wax. loolu nag la Babacar Touré Kewlo gën a jàpp ka ne nag moo waral lu ni mel dinañ si dikk ginnaaw bu ñu ko teeloo mu daal di def ay révélation yu ama ama am solo moom Babacar Touré ñu daal di koy teewlu dégtal leen révélation yi incha allah ñu ñëw après def